lan lan nga ci mën a non non man jege bokk. feebar wala wóoruma mais dama la bëgg expliquer rek dama la exemple la bu ma lay jox. da gis rek si internet nga gis nit génn jël temps am mënoo xëy dem nga job yi wala nga nga xëy si hôtel di wax jabari jàmbur daa feebar waa waa nit la nit warul feebar mais amul amul ki c'est que feebaru jàmbur loo ciy publicité. sauf que jabaru président la. non dama ni boo nekkee soxna président. Hmm. soxna président nit la du jinne du malaaka du rab mën na feebar mais tey gis nga euh, euh, tey nit bu gàddoo paaka daw pour jam la même su la jamul suñ koy atte atte ko rey nit lañ ko war a atte parce que bu yéene matoon yéene moo ëpp pay jëf nit ñi il faut que ñu yéenante jàmm mais feebaru nit ñun Sénégal ñun faruñu Marème Faye Sall du suñu président faluñu ko moom nag mooy première dame Macky Sall lañ fal ñu wér gi yaram Macky Sall moo ñu war a intéressé mais da ngay gis ay nit di taxaw naan diw dafa feebar yéene ko feebar bi parce que gis nañ ko tey jii mu nekkoon fii tey nekk na fii gis nañ ko mu ngi dimbali ni ay nit même yow sax amul ci ndimbal bi dañ ci war a kontaan c'est que yi dama lay wax man man nag man xam man je mange pas mes nit ñi du waxuma ñëpp nag parce que ñëpp mënuñu ànd mel nen mais la plupart dañu soxor dañu yéenewuñu nit safaan rek la ñuy yéene nit ñi te nag yàlla dafa bind nit ñi yàlla l'homme est le représentant de Dieu sur terre yàlla nit la gën a fonk ci àddina teraanga yi nga xam ni yàlla daf ko wàcc ci àddina pour nit yi la. Ah, mais ku siiw aussi mënoo bañ loolu ah. ah non d'accord ku siiw mënoo bañ loolu boo nekkoon dans l'anonymat bu gën a total. loolu doo ko am damay wax pour la parce que tu es au devant de l'actualité. tey nan nga mën a comprendre benn jigéen ñu jiñ ko sàcc ñu ne dafa sàcc ñu jàpp ko ci ci mbedd mi takk ko di laal ay ay cëram. Euh, te yow suñu société moo feebar dama non dama la bëgg. la société sénégalaise peut-être la ñu war a càmbaraat moom laa la wax. Hmm. moo tax dama ni jigéen koo gis mu génn am nga sœur am nga jabar am nga yaay jigéen dañ ko war a suturaal sàcc même bu fekkee daf la wóor ni kii sàcc na sax waroo ko dóor police nga ko war a yóbbu ñu àtte ko mais nga takk ko di jël ay partie intime am di ko laal di ko tripoter filmer ko te kooku mën na am am na doom mën na am ëllëg dina am ay doom ah te internet lu ci dugg deetul effacé wu eh, eh, xoolal ko imaginer kooku nu ñu yàqee àddina am te loolu sénégalais comme moom mbokkam moo ko def dañu wax bi amul sens nañu yéeneente jàmm yow li ngay ñëw di filmer nit pour wane ko ci internet yàq ko yàq njabootam doomam ëllëg mu war a dugg ci ay école di jàng mu génn image yaayam ni ko sa yaay moo nekk nii dafa ñaaw waaw donc yooyu état bi dañ ci war a jël ay ay ay décision yu yu yu yu sévère naa yow lan moo tax nga bëgg inté euh, investir dans le milieu de de la presse est-ce que da nga bëgg am un groupe de pression comme ñu ko ñeneen ñi amee wala boog da nga jàpp ni yow da nga war a nekk patron de presse comme tout le monde. non man dama juddu pour nekk patron. juddu ma pour di toppaate. est-ce que comprendre la am naa yeneen lu ma ubbi loo xam ne du presse parce que tey jii man musicien la je suis un tey su fekkoon ne ci musique kese laa yem pandémie bi bu ñëwee du ma joxe dépense sama kër mais j'ai investi dans d'autres choses ubbi naa ay boîte de nuit ubbi ay restaurant am na xam nga fii bokk naa si artistes yi njëkk am boîte de nuit fi Almadies est-ce que la parce que damay damay investir su ma amee dara damay def ko ci dara tey presse neex na ku bëgg a wax si àddina ci presse ngay jaar pour wax presse c'est benn affaire la boo xam ne man j'aime la presse lu la neex nag ci ngay def sa xaalis. pour mën a am a def pression davantage non man duma man duma pression nit man ku fii tele laa nekk di wax du ma woyaan du ma ñaanaatu. du ma sibooru nit musuma musuma teg nit pression xaw ma pression xamal ma xam liggéey koo xam maam góor